daw ba waa aéroport kalaandoo yi xam nga bu defee bi tamit xam nga il faut mu métti parce que yoon bi métti na ay cent cent la ñuy yab deux cent deux cent da nga daan def tey benn huit mille man ci liggéey ba ngoon tey jii di nga def parce que benn dix mille wala neuf mille man cee doog a liggéey ba ngoon parce que embouteillage bi xam na xam nga rek ca tamit ay ndaw lan dañuy daan doole suñu sañan tamit am lu ko gën mais nag lii rek lañ am muy kalandoo bii il faut ñu nekk ci jéem a taqale daan doole te tey ji boo yokkan tamit paas yi day gën a métti ci yi te tamit ñun ñëpp citoyen lan quoi il faut ñuy jàppalante parce que ñun bu daal carburant bu gën a yomb moo ñu gënal. ah waaw xanaa métti rek carburant moom naka jekk dafa seer ñun nag dañoo yaakaaroon sa foofu lay yem mais comme ñu ngi ni yokkaat ko wax dëgg yàlla moom arrangé wuñu waaw dafa nekk loo xam ne sax ñu ko bañ na mais arrangé wuñu arrangé wuñu arrangé wul clients yi te waaw parce que carburant bi dañ koy yokk dañ yokk carburant duñ yokk paas. tay bo boo bëggee force yokk pass ñu la waro a yokk paas te ñu yokk carburant bi duñ sóoraale tarif bi dañ yokk carburant bàyyi pass te carburant bi dafa cher dix litres six francs dafa cher ñu tegaat ci 550 xom dafa cher ak dëkk bi dëkk bi don liggéey bi neexul dëkk bi dafa naqari ah baw pass paas mën ta ñak a ñàkk yokk parce que sa Dakar xat na xat go xamné ne consommer dafa ëpp embouteillage yi ñëpp koy gis dëkk fo tudd embouteillage la kon donc li nga war consommer consommé dafay ëpp légui ñu bëgg ci si waat yokku gasoil xam nga loolu kay loolu mom day na waar day na waar moom paas yi moom mënut a ñàkk bañ a yokk moom. waaw yokk bi mom metti na te li ko tax mu gëna metti moy bett bi mu ñu bett sax en plus euh ñun daanaka kenn jappalé wuñ ñi ci am auto sax la gëna metti ci ñom parce que mm, tay passé mënu loko yok client yi fayatuñu parce que amuñu xaaliss ba pare ñu bëgg a tourner yokk gasoil ak dëkk bi fi mu toll nii dafay metti trop si ñun nii nii may wax yow nu ngi nii taxaw daanaka taxi kalandoo la ñuy def parce que dañuy taxaw fii di yëpp quatre clients pour ku nekk fay 1200 ñu dem Kër Massar wala kenn ku nekk 1200 la di bëgg di fay kooku boo ci péage bi encore mu seer nga fay 1000 francs péage bi daanaka 3300 mooy des si voyage boobu noonu boo ci bëggee génne gasoil bu seeraat encore loolu dafay metti ah bu ñu mënee dimbali tamit wàññi ko moom moo gën moom bu ñu ko defulee tamit dañuy gaare oto yi. non client des fois nga gis ko des fois doo ko gis parce que taxi moom daanaka méccum jinne la rek da ngay des fois nga xëy daje ko des doo xëy daje dara. donc ñun li ñu fas yéene def ñu ngi déglu suñu ay kilifa ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw ak syndicat yi ñu ngi toog di waxtaan lépp li nga xamante ne moom war nañ ko def ñun ñu ngi leen di xaar saa buñ ñu nee jóg leen rek dañuy jóg buñ ne gaare leen ñu gaare buñ nee jóg leen ñu dox ci tali bi buñ ñu rey ba ñu jeex tamit dañuy dox ci tali bi lépp lu kilifa non yokkum paas mi tamit boo ko defee tamit donc nit ñi duñ ko fay parce que amuñu ko dëkk bi moo tollu foofu bu nu sañoon daal suñu état yi ñu dimbali ñu quoi parce que xam ni nun seen njaboot lañu te nun noo fi teg lépp lu ñu mën a dimbalee ñu dimbaleenu ko moo gën loolu yëpp pour man daal parce que jàmm ji moo gën quoi parce que leneen li bu amee tamit loolu du jàmm te jàmm moom loo ko jëndee lu nekk jàmm moo ko gën vraiment te ñun duñ si bañ dara parce que moom la ñu fi la ñuy amee fu ñu yët suñuy njaboot te ki boo ko xañee lu mu yët njabootam moom mooy xañ nga ko jàmmam waaw vraiment